waaw waaw tëmbal ci kaan yi ba mu saf sap. ndax entraînement yi yomboon na début bi vu que cinq ans woo. waaw d'accord nga daan def da ngay meññee rek waaw da ngay meññee rek waaw parce que boo boo toppee benn bi da ngay kalaaki. waaw da ngay meññee rek ba yàlla jox la combat waaw léegi nag nga maintenir nga nga nga renforcer rek loolu la rek. gis naa léegi ñëpp dajaloo ngeen nekk benn. waaw saa loolu la nga ci wax. ciy sant yàlla bu baax loolu rek lañ doon wut ay at. waaw ku yàlla sottal na ko moom dañ ciy sant bu baax a baax a baax léegi caare yëpp benn la. waaw amatul kii amatul kële lépp benn écurie la benn récépissé la waaw dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax. waa waaw jërëjëf maa ngi kontaan ci yéen jërë ngeen jëf merci beaucoup. léegi ñoo fay naa la lu lay indi fii tey. bëre daan bëre daan. bëre day bisu bëre. taale tàmbali na tàmbali na. Tidiane Faye. waaw. ngeen fas yéene bëre ban date. le 8 août. waaw incha allah rabi. lan nga ko fas yéene def ndax Tidiane Faye ñëpp bàkk nañ ko c'est la professeur de Langsar. nangul nañ ko ko mais ñun lan lañu te le huit lañ ciy xam dara lan lañ xam kan mooy Alioune Seye Junior la ma la ma daan def rek laay def di am ndam la ma daan def rek maa ngi dugg ci biir. bëre mag ak xale la waaw. frère am rakkam Pape di wax nag ne dina doon événement bu bu ñu gëj a gis Sénégal ndax événement bu ne am na fi waaye nag bi dina raw ndax ñi ñu la ak ki ak li moom li xam na benn benn benn bagage nga Tapha ak Boy Niang ku la waxul ne la seen combat du siècle wax loolu yàmb ndax Boy Niang pied droit lay jiital fausse te recul frein lay bëre. waaye su la jàppee it wala mu mbot wala mu indi beneen pexe bëre. kon donc nit ñi bu ñu séntu foofu lamb juy gàpp nañ séntu lamb juy neex si biir combat boobu mu amaat beneen combat bu mu ci tofsal muy diggante Jokkel ak Khadim Ndiaye 2 combat boobu mooy gisaane grand combat bi non doxuma ko moom moom moom moom moom professionnel la waaw Khadim Ndiaye jooju mooy gisaane grand combat bi parce que Jokkel pied la Khadim pied soo xoolee ni ñu wutee si tafaati nag Euh, Boy Niang noonu la wutee si jokel ak euh, ak Khadim Ndiaye 2 muy niwaat Tidiane Faye kii junior junior mu mel ne beneen revanche par procuration bu ñuy jël la en tout cas daal combat bi ak journée bi dina wuuteeg yeneen combat yi ak yeneen journée yi fi am. mais grand Kéba dañu gis ni mbër yu mag. donc am na combat yi fi paas duñ mais li ñëwee ba grand combat bi dootuñu bëree supporters yi dañuy mer ñibbi mais ñoom ñaar ñi la ngeen yóbbali si loolu ñu bàyyi ko xel. non gëm naa ne duñu duñu duñu genre boobu parce que xam nañ li leen di xaar Boy Niang xam na li koy xaar ndax tey aussi Pikine lay bëree Tafa xam na li mu perte ci làmb te xam na ni aussi su ko Boy Niang daanee. mu dem du mën a retraite sax mais dina wàcc ndax su boobaa day dem fekk ji nekk si suuf gëm naa ne daal combat bi man boog si li ma jàpp su dépassé sept minutes dina ma jaaxal. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf. DG ñoo ngi lay nuyu. non maa ngi lay fay mais tey si biir la. rendez-vous bi si biir la waaw. jaajëf. gàggu. tey yi ñu ngi nii ci signature bi kaat bi la Tapha nekk. noonu. ndeysaan moo la séant di Bawol. ma nga noonu moo bëreeg Zos daan ko ma nga noonu moo bëreeg Yékini Junior aller retour daan ko ma nga noonu moom Tapha Tine moo bëreeg Talla Gaynde daan ko moom Tapha Tine bari na naan yoo xamante ne naa na ak ñoom ci làmb daan leen moo daan na deux cinquante de Mbour moom Tapha Tine ndaanaan la boo xamante ne am na cër ci làmb ndaanaan la boo xamante ne làmb bàyyi nañu ko xel tey gis ngeen ko nu mu def muy laaleeg xale bi nga xamante ne mooy doomu Pikine bi moom Boy Niang ndeysaan Tapha Tine ñu noonu. signature contrat bi mu ngi dem sama xel bi Tapha Tine di bëre ji départ am yëpp départ ci làmb délégation bi mu daan àndal Tapha Tine tey moom la àndal ma ngay léemu ndaysaan ma nga sol benn blouson boo xamante ni Zador moo ko sponsorisé moom Tapha Tine a ngi noonu ay mbokkam a ngi noonu ay njaga ñaale a ngi noonu équipe Bawol kenn desut bis bee laaj loolu wala Tapha Tine laaj loolu Tapha Leer a ngi nee ci wàll ndeysaan Ndiaye tir rakkam a ngi noonu lamba ngi nii tafaatina ngay léemu <laughs> ay lamba garaaw lamba yéeme ndeysaan daa indi concentration bu ma jaaxal ci làmb ji waaye bis bi toll noonu ndax boo duggee Pikine laaleeg Ama Balde mu am nu mu demee nga duggaat biir Pikine laaleeg koo xamante ne yaakaar la biir pikin foo am foo xamante ne di nga ko wane ci làmb tey looloo tax tafaatin actuellement ni ci signature bi ba ci làmb ji du maye dara. daa mel ni léemu na ba pare. léemu na ba day wàcc léegi day xaar ñu wax ko mu wàcc bu wàccee ñu xool ban tànk lay jiital bu wàccee ñu xam lan lay mu ndeysaan en tout cas daal xam naa ne bis bee toll noonu moom tafaat aj na be ndeysaan kàggu jëlal ndeysaan le géant di bawal a noonu jël na benn téléphone daa nar a wuyu de ku waxal kan la Tapha Tine nar a waxal <laughs> ndeysaan làmba gi ndeysaan làmba gi ndeysaan Tapha Tine sama xel dem na ci tàkkusaan ba mu doon bëreeg Abdou Diouf Ndeysaan sama xel dem na ci tàkkusaan bu bëri gi ki di siñoor Ndeysaan sama xel dem na ci stade Iba Mar ba muy bëreeg Taale Gaynde ndeysaan pare na léemu léemu na ba pare jël téléphone bi li lay wan ni làmb lépp tegtal la fi mu toll nii day woo sëriñ si ñu wax ko ba xam mën ngaa wàcc booy wàcc nooy def dangay ngay am njàpp wàcc wala booy wàcc da ngay jiital sa tànk ndijoor dañ lay tegal poftan wala nen ngay toj loolu yëpp ay tegtal la yoo xamante ni dafa bokk ci làmb ndax ñoom mbër yi amul kenn ku ciy dem ak sa conscience bopp képp kuy dem dañ lay digal soit say sëriñ digal la say coach digal la wala say grand frère ku ci nekk na la boo demee waxeel nii defee noonu waaye gis nga tafaatin mu ngi concentré wu ci oto bi rek di xaar. am na solo mystique dafa bokk ci lamb boo xoolee oto bi yaa ngi gis uh, benn kaamil alxuraan. Hmm. waaye moom tafaatin ci boppam mu ngi takk morso bu xonk ci loxo ndeyjoor joor bi waaw gis nga béjjënu kooba bi. lamb <laughs> garaaw lamb garaaw lamb. gis nga am na leket buy jël lu ma la waxoon. ndeysaan leket ba suuf la def. xaw mu suuf daal la def benn benn siwo la suuf bu tooy la suuf bi nag xaw ma jëriñ xëy na tabatin ko gis nga ma ngay wuyu bay wuyu sëriñ si faw ñu wax ko na pare na dugg rek lay waaj dégg nga mais duñ ñu mën a may ñu am ci li tafatin di wax ndeysaan dégg nga ñu ànd ak tafatin nee nañ sécuriser leen fépp bu leen maye dara bu dara sedd bis bee noonu bis bi moo toll noonu. ndeysaan. Tapha Tine yegg si na. waaw pikin yëngu nañ. tey bëre nañ arène nationale am ñaari ndam. ndeysaan Zak Zak te dafa an soq daan. ndeysaan booy ña nga war a jóge léegi départ ñëw. xam naa ne doom ndax ñëw waa waa Leewtoo yi ña nga di xool départ booy ñang ndax ñoo indi léegi Tapha Tine Tapha Tine daal xam naa ni dinañ xool ñoom ñaar kan mooy njëkk a dugg si ci biir cosaan waaye xam naa ne signature bu neex la daal waaw waaw bu neex sax. mu ngi yor béjjënu kooba bi ci loxo bi. du yomb gis ñaari monstres si loxo yi loxo ndeyjoor bi bu xonk loxo. Ndiaye mu ngeen xaar pour dugg. pour ñoo pareegul quoi. ñan non ñoo pareegul. léegi looloo tax ngeen di xaar. waaw moo ñu xaar waaw. xaar bi bu ngeen xaaree ba booy ñang départ ñëw ngeen daje ci bunt bi du indi ay njool-njool ci ci ci dugg. jafe-jafe du andi jafe pare nañu lépp. pare nañu lépp. ñu lay fay soxna si. ah, ah ñu gis ne jiitu nga jiitu nga mbër xam mu ngi ci yoon bi noo leen waajalee. di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen baalu àq. ci weeru sell wi ñu jógee di la jili mag lay ziar di la ziar yow tamit borom euh, waa Dakar Buzz nu raw nag comme niñ daan waajalee yeneen combat yi parce que combat bi moo toll noonu quoi waaw. tey mën nañ xaar mbër day bëree wala day xeex. waaw xam nga làmb moom làmb bëre dóor la ñuy wax bëre dóor mais comme Tafa gars yi nee nañ dafa mën a xeex maa ngi koy nuyu moom tamit au passage c'est un très grand champion. Euh, j'ai beaucoup de respect pour lui mais moom mooy seet bu ko neex ma Tapha Tine mooy seet waaw moom mooy choisir bu ko neexee ñu xeex ba pare door a bëri bu ko neexee tamit ñu bëre mais ci kàttanu suñ borom moom yàlla nañu yàlla may daal ñu fekkee ko te tal ko incha allahu rabbi. Tafa xool ni amoo leen at mosoo leen am adversaire bu mel ni Tapha ci taay bi ci dayo bi ak poids beeg yëpp mais yéen ngi jël combat bi mais dafa mel ni da ngeen ko jël à la légère rek da ngeen koy jéggi jaar jàll. non pourtant sax de jëluñ ko à la légère de mais nañ bëre ak poids lourd parce que boo seetloo ci suñu ay mbapat. ba fii ñu toll tey ci tafaatin yàgg nga dégg combat booy ñaa ñu la moo diw gaa yi ne arbitre ko arbitre siffle moo tee mu daanu mais après da ciy génn avec la manière tafaatin champion la comme ni ma la ko waxee mbër la poids lourd la mais xam nga làmb pour nga yegg fenn il faut nga daan ñenn ñi. mais ne dafa am erreur bu mu defoon ci Ama Baldé bëgg a rectifier erreur boobu ci ci ci Boy Niang. Tapha Tine moo wax loola. moo mais xam nga saaga yàkkamtee xeex la. waaw saaga te xeex la affaire bi comme soreetul non Tafa lu mu yor non champion champion la mais Tafa lu mu yor ba tax mu am confiance wax loolu lu ko raw moo ngi ci ñun lu leer laa lay wax jéem. booy nag mi ngi fii mi ngi fii soriwul. xam naa ni bu ma la gis gis ay jarul bëggoon laaj est ce que yéen a ngi tàggat xale instant bi ci non violence bi parce que lamb ji violence bi liñ koy tudd dafa bëri trop trop trop. waaw xam nga booy ñaa mooy ambassadeur de la non violence. franchement ñii ñu àndal ñii ñëpp tey dañu ñëw ànd ak ñun ñu supporter seen mbër mais nag ci fair play ci yar ak teggin parce que sport day boole mais du taxale te ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nag ku ne ñëw rek supporter seen mbër ci sportivité après ñu fi jugee ñu dem mais affaire bi dëgg la huit août la incha allah arène nationale ci kàttanu suñ borom. def leen ndànk ndaysaan ma nga mel ni booy ñang daa war a bëri si kaay. demal ndaysaan baal ma booy a ngi noonu booy ñang ngi noonu le fils de Déggo la ngi noonu xoolal booy ñaa la mu takk xoolal la indi waxoon naa la ko waa Pikine la dañoo mën bis bu ñuy ñëw signature contrat dañuy mel ni kuy bëre si ndaysaan ñu ngi noonu ndaysaan gaa yi ngi noonu ndeysaan ndeysaan booy ñaa ngi noonu cey lamb booy ñaa ngi noonu buntu cosaan ngi noonu lama leen doo wax sànq ngi nii bu ñu fi dajee ñoom ñaar kii wàccagul kii wàccagul bu amee rek ma xam ne lépp dëgg la booy ña ngi noonu di ñëw ndeysaan ma nga noonu di ñëw ma ngay booy booy ñang ndeysaan oto booy ñang ngi noonu oto baa ngay xuus jëm buntu cosaan ndeysaan tàggu avancé ci kanam ñëwal ñëwal. gis nga li ma la doon wax. kàggu. gis nga li ma doon wax. Boy Niang moment bi mu ñëwee. waa Tapha Tine nee dañuy wàcc dugg ci biir. te fii amul benn sécurité. pour ñoom mbër yi ñoom ñoo war a mën a defaral bis bi niñ ko mën a defaree mooy ñu xaar kenn dugg su noppee keneen ki dugg waaye en tout cas ñu ngi buntu cosaan bu tafaatil ñëw na pendant trente cinq minutes duggul booy ñaang dugg si na bi mu ñëwee bëgg a dugg waa tafaatin yi nee nañ dañuy dugg léegi na leen xool ñoom ñaar kan moo ci njëkk a dugg wala nu muy demee ñu xool fu wànnante di mu jékki gëtam ndeysaan ñu ngi noonu booy ñaang noonu di waaj a ndeysaan booy ña ngi noonu di waaj ndeysaan booy ña ngi noonu ndeysaan booy ña ngi noonu di waaj noto misil waayo oh. ndeysaan Boy Niang dugg si na bu baax a baax a baax jërëjëf yaay booy ndax lii mooy cosaani lamb lii mooy cosaani euh, Sénégal ndax lamb du am la ma la waxoon du am du am yan yàlla sàmm la yan yàlla dëgëral la yan yàlla mën na gudd fan wér-gu-yaram ñu gis ñu waaw. o lii. loolu dina lu am. may leen ñu dugg. lii nekk biir bi waaw dama tànn jox ko ñu ne ma bu leen fekk da ngeen fekk bu leen sacrifié bu leen sacrifié ay journaliste lañu dañ ñëw pour liggéey ni alal yàqate seen i bagage tey gis nga grande Dakar fi kew ñaata oto lañ fi tëj ñaata oto lañ fi toj ñaata bagage yi lañ fi jël yàq ko voilà donc dañuy ñaan rek mbër yi ñu dellu waxtaan naat ak fan si club yi sinon lii bu na rek continuer état dina ci jël ay responsabilité te responsabilité yëm ci jël aussi du neex kenn la mais si dañ lay teg ay daan bu njëkk euh, bu yàggul stade xale yoo fa doon bëree seeni supporter yàq siège mais dañ leen sanctionné wax naa keroog le ministre Lamine yaa nga foon fekk làmb commencé wul am poursuite pénale rek moom làmb du ñu xam seen bopp. CNG dëgg la baax na day dagg mbaamu sanctionné mbëri mi mais foog moom des poursuites pénales parce que li ñu yàq ay alalu jàmbur la li ñu yàq ay moomeelu jàmbur la làmb image am du lii si c'est notre culture làmb fecc la. ak tëgg ak way ak bàkku amateur yi solu ñëw bégee may géwél yi xaalis seen mbër bàkku ñu kontaan seen mbër daan ñu kontaan ki daanu ñu gàddu ko mais vraiment vraiment vraiment la tey sama xol dafa metti trop barke yonent yàlla Muhammad waa déedéet mais ku bëgg a xeex sax demal géej ci xeex mais liix wala écran géant bi ñu tojal waa groupe Futurs Médias écran géant bi ça coûte des oto booy ñaa mu ngi noonu xamuloo kan ak kan a yàqule je suis vraiment désolé mais lamb waral dépassé la ah mais war na fi wees mooy li ma wax léegi bu ñu toogee ba au vingt-et-unième siècle <laughs> lamb ji dund lii donc y a problème y problème donc yan façon nit ñooy ñëw ci lamb ji yan façon nit ñooy <laughs> ñooy dund lamb loolu problème la donc doy na waar ay oto jàmbur ñu jàpp ko yàq ko nii ci lamb lii dafa ñaaw buur lii lii du image bu rafet ci làmb. c'est pas normal ji lii mu ngi noonu vraiment lii ñëpp koy déployer ñëpp a koy déployer bu billaay walaay talaay. c'est décevant c'est décevant hmm. sincèrement. foog ñi koy def buur puno oto sax amuñu ko. mënuñu ko jënd barki borom Touba. tey mu ngi nii donc face to face bi li wóor bu wóor mooy que du amaat. du amaat du amaat. boo ñaa ñibbi na parce que alalam yàqu na tey mu ngi nii. ñu yàq kaay xoolal lii ay alalu jàmbur xoolal lii. ñoo xamante ni buur na sax duñ ay duñ seetaan lamb. ci quartier jàmbur bi ñu ko defee Grand Dakar musul am yii quand même boîte bi yàgg na fii yàgg na fi plus de quarante ans lu mel ni musul am dëgg la. ndeysaan xol leen normal dafa ñaaw. gaa ñëpp problème bi ñëpp ñu la ñu ñoo def lépp ñu ñoo ko sookee ñu ñoo ko sookee wàcc sax waaw lii ay mbër ñëpp mbër ñu ñëpp créé la arène nationale arène nationale bu rafet def si ñaata milliards mbëri teggi saisi di ko sànni ñooñu ay nit lañu lii war ñu kon tëgg fii li ñu leen waroon yóbbu ba ginnaaw géej signé fa seen compte comme kii bi lii du yoon c'est pas normal ñaata oto lañ lii du yoon lii du normal waaw gars dañ leen di porte plainte ñi la ñuy porte plainte waa waa groupe état Futurs Médias la ñuy porte plainte Youssou Ndour si boppam la ñuy porte plainte waay waay fi yàq bëri na ñaata nit lañ ci agressé liñ fi agressé dafa bëri plus de combien de moto lañ ci agressé c'est pas normal du yoon li ñëpp koy ñaaw lii du yoon xoolal maire ñu toj seen yi fii est-ce yoon la du yoon quoi waaw bëri na fi pour leen fekk fii di leen di leen yàq ñoo la fii en tout cas ñun c'est la première fois donc aussi bon lii c'est pas responsable parce que ñun ñoo ngi ñëw ku nekk gaare sa oto pour tranquillement xëy liggéey boo xamuñu woon sax tey dafa am signature contrat par la suite leen gis jekki-jekki mbëri ñëw rek xeer yi jolli te bu fekkoon sax dañoo yàqale seen alal garaawul mais alal nit ñëpp lañ xëy de ñooy responsable effectivement c'est le promoteur les gens qui l'ont organisé man ils on caillassé mon véhicule ils ont véhicule dama ko yóbbu fee ci ginnaaw c'est le promoteur. ah bon sooy booy sooy. je vais je vais je vais appeler un huissier qui va constater dès demain je vais les porter plainte. parce que moi je suis un voisin j'habite ici. j'habite ici sooy organiser dara il faut faire appel à la sécurité pour cerner. c'est ça la responsabilité vient du responsable de cosaan et du promoteur. maintenant on va se référer à la loi. Il y a des personnes qui sont habilitées de gérer voilà ces genres de problèmes-là. Demain, je vais faire appel à un huissier qui va constater et je vais porter plainte. Merci.